maa ngi tudd Serigne Modou Awa Balla Deme ñu gën ma xam ci Serigne Modou Deme man maay coordinateur u euh, euh, structure bi muy structure des jeunes euh, leaders du des jeunes leaders Benno Bokk Yaakaar du département de Tivaouane ñu ñëpp xam na ni élection législative yi fi jaar gis nañ ni Benno Bokk Yaakaar moo nekk ci kanam avec quatre-vingt-deux députés donc ci 65 députés yi nga xam ni ñoo nekk assemblée nationale. kon li ñuy njëkk a def mooy féliciter ki nga xam ni moom la coalition bi proposé woon mu jàll comme président euh, assemblée nationale muy euh, Amadou Mame bi nga xam ni donc militant wu première heure la koo xam ni tamit euh, bii mooy trois fois muy nekk député à l' assemblée nationale depuis 2012. depuis 2014 tamit moom moo nekk ki nga xam ni. mooy maire bu euh, euh, Richard Toll kon jàpp nañ ni am na légitimité am na légalité am na tamit base bu ko mën a may mu nekk li nga xam ni mooy président assemblée nationale jóge ci euh, formation bii di Benno Bokk Yaakaar ci loolu tamit ci la ñuy dem di féliciter le président de la république son excellence monsieur le président de la république monsieur Macky Sall ci formation gouvernement bi nga xam ni def na ko te ki nga xam ne moom la teg ci bopp bi di ki nga xam ni mooy Amadou Ba euh, li ñu gën a neex nag ci formation gouvernement bi mooy danoo gis ni daanaka jeunesse bi jox nañ jox nañ leen ci seen place bu baax a baax a baax baax ci gouvernement bi kon loolu dañ ko ci félicité bu baax a baax a baax ñun ñëpp xam nañ ni nag euh, bi nga xamee ni élection législative bi am na ci département bu Tivaouane tendance bi dafa renversé wu dem ci opposition bi ñu gagné li nga xam ni mooy département bu Tivaouane loolu nag. dañuy wax ni guléet mi ngi soog a am ci département bi loolu nag moo tax ñun ñi nga xam ne ay ndaw lañ ñun ñi nga xam ni xam nañ ni Sénégal euh, ñor nañu ñun ñi nga xam ni tey wóor nañu ni donc le président euh, euh, Macky Sall mi ngi defar réew mi ñun ñoo àndandoo dajaloo ci benn structure muy les jeunes leaders coalition Benno Bokk Yaakaar bu Benno Bokk Yaakaar ak majorité présidentielle bi nga xam ni donc moom mooy ñi nga xam ne ñëpp parti yëpp yi nga xam ne yëpp dañuy jàppale le président Macky ci régime bi nga xam ne moom la nekkee loolu nag liñ ci jaar mooy donte defet am na ñun dañuy félici dañuy encouragé ñi nga xam ne mooy responsable yi nekkoon ci département bi di leen ñaax ñu gën a dem ci remobilisation ndax gëm na ni échéance yi di ñëw tendance bi dafa war a renversé waat jugewaat fi mu nekkoon ñëwaat ci benn Bokk Yaakaar te jàpp nañ lu mën a nekk la parce que xam nañ ni tey élection yi passé même bu fekkee ni dañ ko ñàkk ñu ko parce que dañu minoritaire mais dañ ko ñàkk parce que par manque d' organisation ndax bu ñu xoolee euh, li nga xam ne mooy élection locale yi jàll suñu xoolee les listes parallèles xool liste yi gagné xool ñi ñin investiroon daanaka boo xoolee ci département bi da nga naan daanaka Benno Bokk Yaakaar moo fi doon compétir ndax foo ci dem bu Benno Bokk Yaakaar jëlul pay e moo jël deuxième kon jàpp na ni ñooñu ñëpp suñu àndee ñu amaat défaite ci li nga xam ne mooy élection législative yi kon cela veut dire que ni manque d'organisation la mais on n'est pas minoritaire looloo tax nag ñu ni ñun ndaw ñi yéen jóg nag jël les choses en mais dugg ci biir commune yi muy les dix-huit communes yi nga xam ne ñoo nekk dans le département de Tivaouane waxtaan ak jeunesse bi ndax am na ci jeunesse ay jeunes yoo xam ni tey manipulation bi yóbbu na leen am na ci ay jeunes yoo xam ni tey mensonge bi yóbbu na leen am na ci ay jeunes yoo xam ni peut-être comprendre la politique du président Macky Sall parce que c'est à l'horizon 2035 donc ki xiif nag li muy xaar rek mooy nga jox ko mu lekk waaye nag gis nañ ni ay industrie yu bari ci biir li nga xam ni mooy département bu Tivaouane ñun jeunesse bi bëgg nañ porte combat boobu muy emploi jeunesse bi ñu dem ci industrie yi nga xam ne ñu ngi ci biir département bi ñu fexe ba tey jii jeunesse bi nga xam ne ñoo dëkk ci biir département bi ñu mën cee gis seen bopp bu baax a baax a baax li nga xam ne tey mooy taxawal moo taxawal structure bi comme ni nga ko waxee taxawuñ ko pour pour ah, jàppale benn responsable taxawuñ ko pour xeex benn responsable dañ ko taxawal pour jàppale le président de la république responsable boo xam ne nag tey jii gëm na nii lii ñu nekk gëm nga ni dëgg la nga ñëw dugal ci sa loxo ñun itam dell war ni tey jii ah ñun kat donc lii président Macky Sall rek moo tax a jóg. dépp responsable boo jàpp nag mu jàpp ni tey jii structure bii. xeex la wala xeex si li nga nekk wala li nga nàkk moo la kii della xeex ouvertement ba ñëpp xam ko parce que nag li ñu yëkkati yëkkati wuñ ko pour benn responsable xeexuñu ci benn responsable le président de la république ak la coalition benn bokk yaakaar moo tax ñu yëkkati ko parce que tey jii bu ngeen ko gisee tey ku mel ni Mamadou Diouf jiite li nga xam ni mooy PS ku mel ni tey jii euh, euh, Alassane euh, Mbeng jiite li nga xam ni mooy réew mi ci département bu Tivaouane ku Alassane Sall bi nga xam ne tey dafa jiite AFP ñi nga xam ne tey mooy ak li nga xam ni mooy mouvement yi nga xam ni yëpp ñi ngi nekk ci département bi tey peut-être ak gàmmu gi ni mu jigee ñu ci baree baree bare amuñu jot moo tax gisu leen leen fii ñu ñëw mais ngeen xam ni tey toute la jeunesse du département de Tivaouane de la coalition Benno Bokk Yaakaar et de la majorité présidentielle engagé wu nan pour doole seen doole dootul nekk ay doole mais benn doole lay nekk ñu jàkkaarloog ñi nga xam ni mooy ennemi de mooy ñi nga xam ni leen di wax rek mooy na ñëpp jóg na ñëpp ñëw ànd ci mbir mi te xam ni tey jii lenn rek moo mën a tax ñu mën a kii faw ñu boole suñu ay doole. lenn rek moo mën a tax ñu renverser la tendance faw ñu boole suñu ay doole te dañuy wax ni ay ndaw lan tey jii au delà du président de la république au delà de la coalition Benno Bokk Yaakaar au delà de de la majorité présidentielle danoo war a xeex pour la république ndax ay ndaw lañ. ëllëg réew mi ci suñuy loxo lay tàbbi kon bëgg nañ buy tàbbi suñuy loxo mu tàbbee ci ñoo xam ni tey jii den ko téye du du du du tàng ci ñun du nekk safara ci suñu loxo du nekk dara suñu loxo kon combat boobu la ñuy la ñuy la ñuy mënee ñu ngi leen di gërëm wasalaamaaleykum. mais benn laaj dégg nañ ne léegi euh, ngeen euh, euh, nekk président mm-hmm. ndax. Mm-hmm. da a xam ni ñi nga xamante ni ñoo nekk fii amatuñu benn njëriñ parce que bi ba moo waral yéen ngeen taxawal seen euh, question bi xam naa déggoo ma bi may def discours bi waxuñu ni dañ ko taxawal pour tëb ay responsables yi fi nekk dañ koo taxawal pour renforcer responsables yi fi nekk soo déggee sama ci biir discours bi ñu ngi leen di ñaax ñu engagé wu waat ñu ngi leen di ñaax ñu remobiliser wu kon koy ñaax mu ñu remobiliser wu donc kon nekkul koo xam ni tey dañ koy def dañ ni maanaam structure bi maanaam président de la république moo tax mu jóg responsable bi fi nekk jàpp na ni président président de la république moo tax ñu jóg ñu liggéey kon jàpp na ni maanaam ñaar lañ kii daa bëgg fu mu fanaan kii bëgg ko ko wétali kon jàpp naa ni tëjal néeg bi war leen a war leen a jotale kon responsable yi fi nekk maanaam lii du benn courant buy buy raame à contre courant ci li nga xam ne mooy li responsable def danoo ñëw renforcer li ñu doon def parce que xam na ni ñun jeunes yi ñoo mën a dellu suñu moromu jeunes yi pour waxtaan ak ñoom ñun jeunes yi ñoo xam ni jeunes yi bi di dund ñu mën ko jëli ci suuf indi ko ci suñu responsable yi wax leen ko ñoom ñu àggale ko ci kaw kon danoo xam leen ni ba léegi xam leen ni ba léegi suñu responsable départementaux yi nekk ci département bi ci seen suuf la nekk mooy lépp lu lépp lu ndoot dinañ ko jox ñu yóbbul ko président Macky Sall. bu ngeen gisee remaniement bi pensez pas mm-hmm. waaw xam nga xam nga euh, euh, Tivaouane Tivaouane Tivaouane Tivaouane waaw Tivaouane waaw euh, bàyyi tuuti rek tuuti rek ma àggalee Tivaouane jàpp naa ni. ñaari ministre la musa am ñaari ministre la musa am ci li nga xam ni mooy euh, gouvernement bi nga xam ni moom la président Macky Sall teg depuis 2012 muy le ministre Abdou Ndéné Sall moo fi nekkoon ministre ministre délégué nekkaat fi secrétaire d'État beneen bi ministre délégué la woon chargé des des affaires extérieures mu nekkoon madame la présidente madame Seynabou Gaye Touré depuis loolu ba léegi daanaka ay direction euh, ay direction générale lan mus di jox Tivaouane danoo d'accord ci le président euh, président de la république di def ba tax ñu jox carte blanche kon su joxul Tivaouane ci nangam ay direction ngi fi mu jox leen ko au conseil baa ngi fi jox na leen ci euh, euh, conseil économique et social mi ngi fi am na fi ay PCA am na fi lu nekk kon li am solo rek mooy lu ñu mën a jox moom lañ àndal lum mën a defit it moom lañ àndal ñu nous sommes avec le président de la république et ñu solo avec le président de la république allah